Firi Info li ci a kay beeg Thierno Dia bii simila dañ koy dooree Vox Populi moom mi del si at ci candidat yi nga xam ne amoon nañ audience sa palais de la république ginnaaw ba ñu noppee ca boobu audience ki nga xam ne mooy président de la république def na ab communiqué di ci biir communiqué bi di xam ne ne ñu jàpp ne élection présidentielle dañu koy repéré ñu ngi nax seen bopp ndax la ko nag mooy conseil constitutionnel def na liggéeyam maanaam réew mi dekk ci daal ba ñu campagne ba noppi dal dem ci élection présidentielle yi bu ñu ca weesoo lii daal mooy sama mébét Sall Lam Toora Bourguete mu ngay woo candidat yi nga xam ne ñoo war a dem ci élection présidentielle 2024 yi ñu ànd ak daal respecté charte réew mi jox gëdditim bi waa a nag la ñuy sàkku ñuy sàkku ci réew mi jàmm ak salaam di wax jàmm di def jàmm yéen kay bi di ñu xamal ne mooy siis yi nga xam ne jamono ji dañuy yàq seen der mu ngay naqarlu di ñaawlu lu nu mel kii di procureur général bu cour suprême mi nga xam ne ci biir yéen kaay bi ne am na ñoo xamante ni duñ ci dara yàq rek moo leen tax a jóg waaye loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Mohamed Mansour Mbaye ñaawlu yenn kàddu yi nga xam ne dañu koy dégg ci dëkk bi di dal gi ñuy dal ci institution yi at ñi nga xam ne ñoo fay liggéey yéen kaay bi di Sud Quotidien del saatal ñu ci waajtaayu élection yi lii mbir mi dëgg muy recommandation yi nga xamante ni bëgg neen candidat yëpp respecté ko moo di réforme institution yi juróom-ñetti candidat engagé neen ci lu nu mel kii di Cheikh Tidiane Dieye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo Serigne Mboup Bassirou Diomaye Rose Wardini Khalifa Sall la ñu def seen bopp ca dëgg dëgg dëgg assises nationales yi la ñu fa tënkoon seen biir programme maanaam engagé wu neen pour am ay réforme ca institution yi yéene kay bi di ñu xamal ne ki mu am jaaxle dëgg-dëgg mooy taxawaayu Amadou Ba ca conseil des ministres kay bi di ñu xamal ne niki ji président Macky Sall convoqué présidentielle 2024 yi ñu jëm ci jamono jooju fekk président Ousmane Sonko moom waajaloon na ko noppi jàpp na mooy maître dix heures kay bii yor yor la muy xamle ne ne président Sonko kay ay ndëgg sirax yu mag la laloon ndekkee la ko mooy candidat yu bëri yi ngeen dégg yëpp moom moo xalal yoon yéen kay bi di ñu del siatal ci ne démb vidéo bi nga xam ne ni moom la defoon yéen kay bi di ñu xamal ci vidéo boobu est-ce wax ndax du jëmmam waaye li nga xam ne mooy projet Pastef bi nga xam ne togg neen ko ba mu ñor moom laa bëgg mu réussir moo tax nag ay stratégie yu garaaw a garaaw la ñuy ngir li ñu bëgg ñu daal di koy am ma xam ne nag li mooy benn acte ci li muy teg am na yeneen yu des lancement la rek film bi dëkkagul am na yeneen vidéo yu des lépp lu ma war a leeral rek dinaa ko leeral ba mu leex ci bopp askan wi yéen a kay bi ne mi nga ca kaso ba kay waaye moo yor direction bi di dawal fu ko neex mu gaare bis bu sottee du bokk waaye li mu bëgg mu am dina am tegal ma sa baaraam foofu ma ñëw dem yëri l'observateur moom mi xëyee musibay mbamba kumba ki nga xam ne mooy am di jaw ni bërki demb lañ ko fat-fat wu ñaaw ca soogaas nekkoon seeraas moom moom nag ba muy faatu bàyyi na ñetti soxna ñetti soxnaam yooyu ñu ngay témoin témoin sur fet ki nga xam ne mooy yaayam nag dafa màggee ba tax mënuñ ko wax musiba mbamba kumba wi mu nga xewee nag ca bàlloo ji ba léegi beneen musiba mbamba kumba xawee ci are géej ki demb di benn nappukat boo xamante xamante ni ca fas booy la jógee moom moomee dafa am ku fa faat daal di koy rendi ñooñu tamit fayu daal di faataat ki ko faat mbir ma nag ma ngay gën a dayoo ki nga xam ne mooy chef de quartier ba sax dañu koon sotti essence ne dañu koy taal lu nu mel nag mu nga xew démb ca caaroy libération di kattal ñu ci réer gi nga xam ne ay commando marin def nañ ko juróom benn fan ci weeru janvier bi ñu génn jëm ci révélation ci benn scandale am na ci gaal gi nga xam ne trafic à drogue ca leen nekkoon yéen xamal ne juróom ñetti nit ñi ñoo suuxal gaal gi démb placé nañ leen sous mandat de dépôt association de malfaiteurs la ñu leen toppee yéen kay bi di tàggat yaram lañ koy jeexalee ak record ñoom Lions yi gayndey Sénégal war a laaleeg huitième de finale waa Côte d'Ivoire ñi nga xam ne ñooy waa Côte d'Ivoire dañoo bëggoon a luye ji ab entraîneur wante fédération française bu football dafa lànk ci lu nu mel yéen kay bii dee sat la xam le mooy Sénégal ci danger la ne ngir jàkkaarloo at Côte d'Ivoire yéen kay bi di sunu ki nga xam ne mooy Tapha Tine mu ngay xam ne ne master des rois des arènes lu nu mel nag la bëgg <laughs> cey tafa ñu yendoog jàmm